yaa daf ñu andil ñeneen mun cee lim monsieur le ministre Olivier Boucal. defe naa foofu Pape Demba yóbbu woon parti bi rek moom yóbbu na ko fu gën a kawe ba xam nag seen diggante ak moom. yàlla andi ñu ñeneen comme seen député Chérif Ahmed Diko. nga xam ne yàgg naa ko wax bi may xamante ak moom dama ci au collège au CFP amical Camara de Ziguinchor. de valeur ndax wane na ko ci taxawaayam à l'Assemblée nationale bu il y de cela un peu plus d'un an bu may démarrer sama chemin la caravane de la liberté jógee Ziguinchor fas yéene woon dem Dakar fii moo nekkoon la première étape et tout Goudomp s'était mobilisé pour m'accueillir ici dana boobu Olivier mu nga woon en prison et je vous promis que non seulement su neexee yàlla tous ceux qui ont été arrêtés seront libérés et au premier desquels Olivier Boucan mais je vous avais promis que bu soobee yàlla en 2024 réew mi suñu loxo lay tegu. Ça, c'est grâce à votre dévouement, votre engagement, votre détermination. parce que fii bokk na ci aksi yoo xam ne yàgg naa tàng yàgg naa yëngu ba léegi masawu daw ñi xam ne gaañu nañ ci wala jàppoon nañ leen ci waaye Goudomp a été au premier rang combat pour la libération bu donc mënuñu koo fàtte ci dara ce que j'ai développé hier ci pôle de développement sud bi xam ngeen ni dafa jóge gurum bu ma jooge et guddoon et au cœur ko promoville lu tuuti ci li ñu am ci guddoon ak yeneen ak yeneen ñu ngi koy tudd yëpp xam nañ ko te bu soobee yàlla après la victoire du 24 mars après celle incha war a jublu ci liggéey bi dans les mois à venir vous allez voir waa Goudomp comme tout le Sénégal les efforts que nous allons faire dans le gouvernement. et sous la présence de son excellence Bassirou Diomaye Faye pour répondre à chacune de vos préoccupations. ma bëgg nag ñaanal benn mbir am na erreur bu am te biñ koy def yegg si woon ndax ñun ni ñuy fonctionner des autorités yu jox responsabilité. le ministre Boukal est là il peut vous dire que je n'ai jamais sur des dossiers parce que jàpp naa ni. lañ ko jox mag na pour mën koo def donc on a parlé des langues nationales yi ñu war a introduire su dee dugaluñ ci balante c'est une commission qui sera rectifiée que mënoo dugal la langue nationale au Sénégal te dugaloo ci la langue balante qui est l'une des langues les dans cette zone kon je dugal Joola dugal ñëpp dugal Sira dugal yeneen ñu dugal ko sama parent te di nga xam ne il faut que cette Joola ñu mën a tudd ak tudd ak tudd Sira da ci des nag da ci des nag bu ma ko waxee je vais me répéter vous connaissez l'importance du rendez-vous du 17 est-ce que Goudomp est prêt Goudomp dina gën a joxoon président Bassirou Diomaye ci élection bi monsieur Koungheul 65 pour cent donc yéen moyenne nationale yi yokkoon ngeen ci kon yéen yéen bokk ngeen ci ñu tirer le score mais cette fois-ci cette fois-ci ce que je veux de Goudomp c'est 95 pour cent est-ce sûr qu'il y a encore quelques jeunes ici qui n'ont pas retiré leur carte d'identité. Comme rendez-vous le 17, M. Boukaou, les candidats titulaires comme suppléants, le 17, bu mën a sax pour que nga xam nga pas de 19 heures à 11 heures je vais appeler pour avoir